Elle va très bien elle va très bien ay wax la rek depuis le début xam nga dafa am ñoo xam ne dañu am une fabrique li ñuy wax la fabrique du mensonge dañuy xëy suba ba jant soo di fent ay ay wax yoo xam ni jegewul ak dëgg mais loolu dañ koy def pour di fooyee askan wi aji saa musut a génn Sénégal mu ngi toog mu ngi ci jàmmam di xaar procès ak Atepa nijaayu Ousmane Sonko. gañe na procès ak Ousmane Sonko mu ngi pare dëkku nijaayu Ousmane Sonko te dina ko gañe parce que da koo sosal diffamation dëkk bi ci dëkk bi ñu nekk léegi ak ni ko président Macky Sall tëyee ak ni ko Antoine Diome tëyee ak ni ko ministre Ismaïla Madior Diouf tëyee réitéré principe yi nga xam ne ñoo war a sanc une république ku fi diffamé que tu sois Pierre Goudiaby Atepa que tu sois Ousmane Sonko que tu sois Françoise Hélène Gaye dañ lay yóbbu devant la justice nga ñu régler ko parce que y' a pas un citoyen au-dessus de la loi. sànq rek ba ñuy toogee di añ on a parlé on a je lui ai expliqué pourquoi j'étais venue waxtaan ak moom un peu ce que je en train de faire comme je le fais avec elle tout le temps du temps jël nemmeeku ko xam ndax mu ngi ci jàmm bu soxla soutien psychologique wala ay comme yaay ak boo amee doom boo xam ne par exemple dafa nekk bitim réew xam nga de temps en temps tout le temps ngay nekk ak moom di wax ak moom mais de temps en temps nga jox ko quelques orientations quelques euh, you know conseils mais vraiment ça va pour l'instant daal gis naa ni mu ngi reprendre confiance en elle-même et en la société sénégalaise